alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara ci weer wu mag wi ñu nekk rawatina fukki fan yi nga xam ne moo ci mujj te ñu tàmbale ko di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu dëgëral ñu ba ñu mën koo joxe ni ni mu waree te yàlla nangul ñu lépp luñ ci taxawee ci xeetu jàmm yàlla yàlla tamit jéggal te may ñu ci mbaaxam ñu fekk ko at yu baree bari yu ànd ak xéewal ak jàmm tey ji nag kon mooy doon ñetteelu jataay yi nga xam ne dañ koo jagleel lu jëm ci laaji diine ñu fas yéene cee ànd ak sëriñ Cheikhuna Mbacke Abdou Wadoud moom doonul gan ci jataay bi ci laaj yi ak tontu yi ak tamit ci waxtaan yi tey jii moom la ñu fas àndal mu ñëw ak ñun ci laaj yi nga xam ne rod na bàyyeekoo ci mbokk yi kon dañ koy bàyyee mu nuyoo su nuyoo ba noppi ñu door a tàmbali liggéey bi incha allah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wa kafa wa salaamun ala ibaadihi alladina astafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu bokk fi teew yépp di nuyu itam képp ku sunu kàddu di àgg ci moom ak mu man di nekk di ñaan bi sëriñ Cheikh ñaan lépp rek noo ngi ñaan noonu itam yàlla nangu ko defi ko noonu tey ñaan mu dimbale nu ba nu mottali koor gi ci ni ma ko bëggee defal nu leen ci digge ci aw yiw fekkalawaat nu ko ay yoon ci ak wér ak tal insha jërëjëf sëriñ ci nuyoo bu am solo bi kon dañuy njëkkee ci laaj bi nga xam ne boroom day laaj ne laaya ji di sunu boroom di wax ne chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhuda walfurqaan mu ne dafa bëgg daal ñu firil ko laaya ji waa di mooy njëlbeenu téeméereelu téeméereelu laaya ak juróom ñett fukk ak juróom ci saaru albaqara yàlla da ci wone ne weeru koor ci la wàcce alquranul karim alquran doon ak njub doon itam luy leeral nit ñi di leen won aw yoon doon lu leen di won luy tàqale dëgg ak lu dul dëgg loolu moo jot a ñëw ci laaj bi li mottali li mottali laaya ji nag mu ne weeru koor woowu yi nag ku ko ku ko fekkee na ko woor ku fekkee na ko woor ku ko fekkee te wéradi mbaa mu nekk ci tukki mën naa bañ a woor te fay ko ba ni laay jeexe ñi nga xam ne nag man man nañ ko waaye day diis ñoom lool lool lool loolu ci njëlbeen gële woon waaye day diis lool ñoom mën nañoo bañ a woor ñoom it sarxe rek te sarxe kon laay ji ci noonu la dikkee waaye ñooñu nga xam ne nag sarxe man nañ koo def lay wax ne ñoom bu ñu wooree nag moo gën koo xam ne bu wooree dana diis ci moom waaye teewut mën na ko dana metti waaye teewut mën na ko ci njëlbeen ga la waaye loolu dañ koo folli dañ ko folli bu yàgg ci njëlbeen ga rek dañ ko folli waaye dañoo maye woon ku mën a woor waaye koor gi dana metti ci moom waaye teewut mën na ko nag dañ koo mayoon mu bañ a woor tey sarxe waaye ñu ne ko woon nag woor nag moo gën sarxe suñ sax kon loolu mooy laay jooji ci saaru baqara jërëjëf sëriñ bi kii dey laaj mu ne lan mooy àttab jigéen joo xam ne du ràññeele diggante dereti baax ak dereti jàngoro waaw loolu de moom moom boroom xam-xam yi ràññeeleel nañ ko ko bu ko mënut moom itam boroom xam-xam yi ràññeelal nañ ko ko nee nañ ko daal mbaax moom bu àggee nangami fan moom bu ca xasee àgg rek boo gisaatee leneen tam bu ko jàppee mbaax liñ koy defe mooy ku ku koy door a gis yoon moom ku njëkk a gis nam tolloon loole lañ naan mooy aadaam kon bu dikkaatee day jàpp ne lu toll noonu la koy gis waaye bu àggee ci loola ba noppi muy gis dañ naan ko man nga cee tegaat benn fan ñaari fan ba ñetti fan te yem ci te yem ci bu dellusiwaatee mu jàpp ne loolu mu mujj gis mooy mbaaxam bu ko weesoo mu tegaat ci gis ñaar ñett moom it di ko def noonu ba ba muy mat fukki fan ak juróom bu xasee mat fukki fan ak juróom nag du ko weesu moom saa bu matalee fukki fan ak juróom rek lu ca topp da ko day jàpp ne du mbaax waaye ak wéradi la bu boobaa nag day sangu di julli bu dee jamonoy koor la muy woor ba waxtu mbaax jotaat mu door a jàpp ne mi ngi ci mbaax kon dëgg-dëgg umpule gi daanaka amul jeexit ndax tënk tënkal nañ ko ko bu ko munta ràññale it nee nañ ko moom nangami fan moom bu ko xasee mat rek lu ca topp bu ko jàppee di mbaax euh, suñ seex kon loolu daanaka ñàkk ràññale moom boppam mën koo ñàkk ràññale mën naa bañ a wàññi dara waaye na xam rek ne lii mooy baaxam baaxam mooy lim mu ko aadawoo gisam lii mooy aadaam mooy li ko baaxoo gis bu dikkaatee nar koo weesu mën na caa dolli benn fan wala yaar wala benn ba ñaar ba ñett li fekk muy mat fukk ak juróom saa bu matee fukk ak juróom nag ca lay moom du ko weesoo si lu mu gisaat ginnaaw bi yëpp du ko kii moom day laaj mu ne lan mooy atteeb kooru góor goo xam ne daal mani yu dafay faral di génn ci moom ci lu yomb nga xam ne bu doon waxtaan ak soxnaam sax mani bi tam lay mu ne kooku bu wooree loolu dal ko luy atteeb kooram waaw loolu da dañuy wax ne moom li ci yàq koor daal mooy bu fekkee dafa génn te lu ko baaxoo génne génne ko lu ko baaxoo génne nag bànneex lay doon day doon bànneex bu ko baaxoo génne bu dee bànneex bu ko baaxoo génne moo ko génne kon day yàq koor bu fekkee nag loolu génnewu ko du yàq koor lii muy wax moom ci ne day gaaw gaaw gi man naam daa gaaw am bànneex bu gaawee am bànneex mu gaaw a génn kon day yàq kooram kon day yàq kooram kon moom day moytu day moytu lu koy man a yóbbee bànneex boobu day moytu lu koy mën a yóbbee bànneex boobu ndax bu dee bànneex bu ko baaxoo génne la moom bu ko génnee rek day yàq koor te bu ko nit ki jubloo sax nag dañ naan day kafaara mook ku dog te tey ko ñooyam ku dog te tey ko te amul ngant day kafaara kii nga xam ne daa def loolu baaxoo naa génne loolu mu def ko moom it te jublu ko kon bu génnee kooram day yàqu te day kafaara sax bu fekkoon ne nag jubluwu ko kon koor gi day yàqu rek dina bànneex bala bu bànneex bu ko baaxoo génne amut nag kon bu génnee itam kooram du yàqu sangu rek lay def waaye kooram du yàqu sëñ Cheikh jërëjëf sëriñ Cheikhouna kii moom day laaj mu ne ndax natt yi ñuy def par weer di teggi wala at can di teggi kenn nañu dëppoo mu ne ndax loolu azaka da ci war loolu de li ñu jàpp mooy asaka du waaye kenn ku ne la moomal boppam la asakay war bu ca war mooy ku bokk cib nat moom waxtu wi mu war a seete mbirum asakaam bu jotee day seet li mu am mu nekk ci loxoom walla mu nekk daal ci kilifteefam tam moom ko day seet lool bu dee cib natt la nekk te teggee gut mi ngi doon teg te teggee gut kon lim jot a teg da koy limaale ci lim am ndax day mel ni ab bor la buñ ko ameel ndax dana ko teggi ji mooy danañ ko ko fay kon bu fekkee mi ngi teg te teggeegul lim jota lim jot a teg buy xool lim am da ko tey boole bu fekkee nag teggi na te natt bi matagut kon moom it lim war a tegaat mu des te mor koo tegaat day mel ni bor la bor la moom du ko limaale ci da koy génne li mu am li mu am bay seet ndax asaka na cee mbéet ak ci bor da ko cay génne li mu amee ci bor nag li war a te tegagu ko te fekk ba noppi loolu ci lay bopp waaye ci boppam moom dee su ci génne asaka kenn ku ne mooy xool alali boppam moom ndax asaka war na ci walla déet natt bi nag mën na cee jeexital ndax bu fekkee teggeegul lam jota lam jota teg loolu da ko jàppe ab bor buñ ko ameel loolu da koy limaale ci lim am bu fekkee dafa teggi woon nag li des mu war koo tegaat loolu da ko jàppe bor bu mu ameel bu boobaa lim am da ko ciy génne koy génn ci lim am ndax dana li ci des dana mat lu asaka waram dees sëñ Cheikh jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax ñi nga xam dañoo amee tawati asib pompe yi nga xam ne moom la jëfandikoo bu ñu ko jëfandikoo ci jamono koor ndax day yàq koor wala déet waaw pompe yooyu day moom day loolu yàggewut noonu bi mu xewee yàggut kon mooy borom xam-xam yu njëkk yi ñoom waxuñ ci ndax amutoon seen jamono moo tax borom xam-xam yu mujj ñoo ci mën a wax ñoo ci wax itam bi ci waxee it dañ cee wuute dañ cee wuute li tax ñu wuute ci it mooy li ñuy pompe muy dugg ci biir lañ ko jàppee moo wuute lañ ko jàppee ma wuute mooy dafa am ñu jàpp ne ngelaw la rek gaz gaz la rek gaz la boo xam ne day dugg bu duggee itam du dugg ci biir bi waaye ca xateur ba lay dem xateur bi nga xam ne ko noyyi fa la ngelaw lay dem ngelaw loolu tam fa lay dem day yombal ci noyyi ndax day mel foofu day fatt bu fa demee nag dana dana dana dana ko fattati wala dana ko fattati daal ba du fattati ku jàpp ne loolu la danaan kon du yàq koor ndax ngelaw la te demut si ci biir bi nga xam ne lu fa dem mooy yàq du ak lekk du naan itam waaye am ñu wax ne nag am na lu ca nekk loo xam ne xeetu ndox la ay ay peppi ndox lu mel ne peppi ndox ay seppi lu mel ne da caa nekk te dana dana ca am lu jàll ci biir bi boo kon dañ naan loolu day mel ni kon ndox mu jàll ci biir bi la loolu la ñu waaye di gën a wóor daal kon ginnaaw wuute bi amee na ci noonu am na sax ñu wax ne moom daal day yàqu koor rek mu jeex am ñeen du yàq koor rek mu jeex moo xam lu mu ci mënti doon du yàq koor ñeen lu mu doon day yàq koor kon bu wuute gu mel noonu amee dañ naan di gën a wóor kon mooy jàppe ko lu yàq koor ba koo xam ne mënu koo ñàkk a def loolu ak wéradi la itam ak wéradi moo koy waral ki wéradi sañ naa bañ a woor kon bu wéradee bu ko loolu dalee mu dem bañ munta ñàkk jëfandikoo loolu bu ko jëfandikoo rek na jàpp ne kooram na bu jeneen jamono jotee ju mën a faye mu fay mooy di gën a wóor waaye te wut wuute gi am na ci am na ñu wax ne sax bu fekkee li koy daane bariwut li koy daane bu bariwut mën na ko jàppe lu yàqu koor bu bariwut waaye bu baree nag mën nañ ko mën na ko duñ ko jàppe lu yàqu koor yooyu yëpp day wane ne kon wuute gi am na ci wuute gu mel noonu bu amee nag dañuy seet da gën a wóor la gën a wóor nag mu jàppe ko di yàqu koor rek bu ko defee ci woor ba loolu dab ko ndax ay crise lay doon crise crise crise lay doon yoo xam ne bu dabee nit ki day mag day def noonu door a mën a ànd ak sagoom boo crise boobu dabee ba mu def ko nag mu jàpp ne bis boobu moom waram yàqu na mën naa jëfandiku di jëfandiku ba bis bi jàll saa bu ñu demee bu mën a fay bu fay sëñ Cheikh kii day laaj mu ne bayitu sëriñ Touba wii de la bëgg ñu leeral ko ko li sëriñ bi di wax ne qad baata yaxriqu tibaaq fi leyli qaasida wifaaq wal anbiyaau bi ittifaaq laa qawhu bi takarrum waaw bayit woo da ci jadbal xuluub la nekk sëñ biit da ci wax ci al isra wal miraaj mooy rañaan rañaane bi yàlla rañaane wal yonent bi sallallahu alayhi ko màkka yóbbu ko al masjidul aqsa loolu mooy rañaane gi ak nag yéege gëm ko yéege woon ba fa ko soob mooy al isra wal miraaj benn bayit bi kon day mel na da ci wax ci ñaar yëpp wane na yonent bi ci guddi gi ñu ngi doon xotti asamaan yi xotti asamaan yi loolu miiraaj miiraaj bi daf ci doon xotti asamaan yi ndax day yéeg ci asamaan yi romb jenn teg ca jeneen romb war ko teg ci jeneen ba am yam waaye bi ñu jógee Màkka jëm ak Baytul Maqdis it mën nañ ko mënees ni ko tuddee xotti asamaan xëy du ay asamaan moom ndax loolu ci suuf asamaan suuf sii rek la moom asamaan si gën a suufee la waaye ba muy def meeraaj bi nag dafa xotti ay asamaan di bëtt ay asamaan te it yonente yi ñoom ñëpp dañoo ànd dajeeg moom ci seen coobare dajeeg moom ci warmaal ko ci teral ko dajeeg yi am na ci isra mooy bi isra bi mu jógee màkka ñëwa betul maqdis bi ko yàlla di laata yéege jiite na leen foofu jiite na yonente yi ci al betul bi ko yàlla yéegee itam dajewaat na am na ñum ci dajeelaat kon daje nañu moom ci betul maqdis bi ñu bi muy waaye am na ñum dajee dajeelaat ci ñoom itam bi muy yéeg ndax am na asamaan yooyu su ne am na kum fay fekk wala ñu fay fekk kon sëñ bi day melal foofu rek rañaane gi ñu rañaane yonente bi ak yéegee gi ñu ko yéegee ak it ni ñu ci dajeeg yonente yi ñu nangul ko warmaal ko peral ko jiital ko suñ seet kii moom nee na benn waaye ngi nii boo xam ne dafa faatu mook soxnaam ak seen doom bi góor ci benn accident boo xam ne daal xamuñu kan moo ci njëkk a mu ne kon ñooñu nan la ñuy donante ci seen biir diggante góor gi ak soxna si ak doom jooju mhm. mooy ñëpp ñu faatoondoo rek buñ faatoondoo wut itam kon daal yëg nañ ne ñoom ñëpp génn nañu àddina te xamuñ ku ci jiitu ak ku ci topp ak ku ci topp xam nañ ñoom ñëpp ñoom génn nañu àddina te noonu xamuñu ku ci jiitu ak ku ci topp ak ku ci topp boobaa dañ naan rek euh, ñoom kenn du ci doon moroom ji kenn du ca doon moroom ja moo xam ñii moo xam ñeneen la mooy ñëpp ñoo xam ne rek ñu mënoon a doon doonante lañ bu fekkee dañoo faatu te xamuñ ku ca njëkk faatu ak kon du ñu doonante ndax ci sarti doon da caa bokk ci ci doon mujj mujj ci dund gi ki muy doon mujj ko ci lu mu gàtt gàtt mujj ga nag dañ dañ koy xam dañuy xam ne moo ko mujj moo ko mujj ci dund gi lu mu gàtt gàtt bun xamut ne diwa mujj ci dund gi rek du mën a donn du mën a donn ka ka ca des ka ca kii kon bu demee nii daal euh, kenn du ci donn morom ci buñ xamee nag ne kii moo jiitu ci topp ci lu ñu jegee jegee jegee ke mujj day doon ko jiitu ke mujj day doon ko jiitu mooy lam ci waroon doon kon dañ koy boole ci alalam ji nga xam dañ koy doon naat moom waaye day day doon kon ko jiitu bu ñu xamut nag ku jiitu kenn du ci doon moroom bi kii mu ne lan mooy atteb jël ab kaamil wala alquranul karim jox ko koo xam ne ab jullit ndax da cee bëgg a gëstu lislaam waa lii cosaan lii cosaan day mooy dañuy bañ loolu dañuy bañ ku jox alquran ku dul jullit ndax bi dafa tere woon te jamono yooy nga xam ne am na réew yoo xam ne ñu dul jullit ñoo fa ëpp lool lool lool da daan tere ab jullit di dem di dem ci di tukki ci birab yooyu di yóbbaale alquran waaye ñu jàpp ne li taxoon mu koy tere mooy da doon ragal ñu man koo foyee wala ñu mën koo doyadal wala ñu mën koo saboote loolu ci lañ natt nekkoon jox ko ku dul ab jullit waree su ko def ndax ragal ca loola itam ndax ragal ca loola kon loolu mooy cosaan bi waaye mën naa am nag cosaan loolu itam mën naa am lu ko lu ko lu ko lu ko woyofal moo dina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bindoon nay bataaxel di ko yónnee ay ay wuur ay buur yoo xam ne du ñoon ay jullit te doon na ci bind alquranul karim kon dëgg-dëgg li ñu war a xool mooy rek ndax ragal nañ ci ñu doy dal ko wala déet bu ñu ko ci ragalul rek rawatina nag ñu séentu ci ñu mën cee séentu njariñ mooy ñu mën cee séentu ne kii bu jàngee alxuraan bi yàlla mën na ko cee gindi te ragaluñ ci ak doyadal doyadal bu ñu doyadal alxuraan bi foog naa bu demee noonu nag euh, nu xool ne yonente bi defoon na ko mën nañoo jàpp ne boobaa du wàññi dara kon ku bëgg gëstu ci lislaam te ragaluñ ci moom buñ ko joxee alxuraan mu doyadal ko mooy dana ko warmaal man naa am it bu ca bu ca bu ko jàngee mën naa am yàlla gindi ko ca loolu foog naa ne mën naa bañ aay bu nu gisee ne yonent bi defoon na ko bu xoolee loolu te defoon na ko ñu mu doon bind ay bataaxel di leen woo ci lislaam te nekkuñu am na ci seeni bataaxel ay laay alxuraan karim boole na ko ci cosaan la nag li ma ko waxee moom mooy euh, lu ñuy bañ la ndax waaye la tax ñu koy bañ foofu lañu war a xool rek bu loola amut man nañ war nañ koo mën a bañ a euh, bañ rawatina bu fekkee dañ caa séentu nag njariñ suñ seet kii moom day laaj mu ne ndax koo xam ne dafa fàtte yéene ba xëy bëgg a woor ndax ak wooram dina baax déedéet nag na koorug farata moom koorug farata moom da koy yéene balaa fajara balaa fajara jàll mooy lu jiitu fajar wala lu tolloog fajar ci la koy yéene bu yéenewut ba fajar jàll rek ba fajar dugg rek boobaa bis booba moom du doonati bisu kooru farata moom ci moo xam ci ngër mi la moo xam ci yeneen ngër yi la ñu néew a néew rek ñoo ci wax ne mën naa nekk bu dee kooru farata waaye njëriñ moom mënu cee nekk ñi ëpp ëpp ci leen ngër itam mënu caa nekk koor bu dul farata la ngër bi ba tey nee na mënu cee nekk moom it koor bu dul farata it mënu cee nekk nit ki moom day fekk mu yéene koor gi lu jiitu fajar bi di jàll yeneen ngër nag am moom wax nañ ne bu dul farata moom mën naa nekk nit mën naa xëy yéene wutoon koor ba yoor yoor mu door a yéene koor ngàtt nga ngàtt nga ci lu génn ngër mi bu dee ngër nag koor googu sax balaa wér dañ koy yéene lu jiitu fajar di wees di weesu bu dee farata moom daanaka man nañ ne amul kenn ku wax ne mënees na koo yéene ginnaaw fajar muy wér kon ki yéene wu daal bu fajar jàll wala ba fajar jot ba dugg day xam ne kon bis booba rek mënut a nekk kooru moom mënta nekk koor ci moom bu dee rek moo xam farata la moo xam du farata kii moom dane ab taawa gi nii boo xam ne dafa ànd ak i rakkam nee na seen bàyyi faatu bàyyi fi ay nag nee na taaw bi jël nag yi jaay ko xaalis bi mu séddale ko ñooñu mu bokkal waaye ñëpp a tolloo te nee loolu nag miraas la ko tudde mooy laaj ba xam ndax jëfam jooju baax na wala déet ah déedéet miraas moom buñ jël lépp rek séddale ko ñëpp tolloo la ci rek mu jeex xanaa bu fekkoon ne te loolu leerut lool ci wax ji bu fekkoon ne ñi ko war a doon ñu ci bàyyi te ñu war koo doon ay doom rek rek rek lañ ay doom rek la fi bàyyi te ñu war koo doon te doom yooyu itam seen cër yi tolloo moo xam dañuy góor yi kese wala ñuy jigéen yi kese bu demee noonu loolu nag leeru ci laaj bi demee noonu moom ñii baax nii lay dem nii dañ koy war doxale bu doon ñu ci bàyyi ñu war koo doon ay doom rek lañ te doom yooyu itam ay góor rek lañ wala ñuy ay jigéen rek kon moom dañ koy seddoo te dañ ci tolloole waaye bu demewut noona rek lu demee nii bu demewut noona rek lu demee nii nit mën na koy jóge bàyyi ci ay doom wala bàyyi ci ñeneen ñu koy doon wala keneen ku koy doon mën na koy jóge bàyyi ci ay doom itam góor ak jigéen bu dee góor ak jigéen duñ tolloole bu fekkee bàyyi na keneen ku war a doon itam doom yi sëñ ñoo jël lépp ndax moomuñ ko ñoom rek kon daal euh, mi ngi aju ci doom yooyu doom yooyu muy wax ndax ñoom rekk la fi bàyyi ci ñuy doon ak it ndax doom yooyu ay góor rekk lañ walla ay jigéen rekk lañ lu ci am lu dul lii rekk kon moom du doxe nii mu ko bëgg a doxale jaay lépp rekk séddale ko ñëpp tolloo la ci insha kii moom nee na koo xam ni dafa juddoo ci ay jullit waaye baayam du jullit ñu tuddee ko turu jullit ndax loolu dana tax ñu mën koo jàppee ab jullit waaw bu dee xale dëgg-dëgg diine dëgg-dëgg dëgg-dëgg bala ñoo xam dëgg-dëgg diine yi nit day day day day nekk muskàllaf ba tànn ba tànn bu ko nekkagut nag dañ koy àtte ci fi mu màgge ak ni mu màgge fi mu màgge ak ni mu màgge lañ koy at bu fekkee dafa màgge ci biiru ci biiru jullit dafa màgge ci biiru jullit bi màggee ci biiru jullit ñi itam di defandoog ñoom lañuy ñuy def ci wàllu diine kooka dañ koy jox àtteb jullit ak baayam lu mën di doon ginnaaw moom moom ci biir jullit ñi la màgge te bi màggee ci seen biir it daa ànd ak ñoom ca la ñuy def man ma man nay julli man nay woor li ñuy def loo xam ne mbirum diine la ca ànd ak ñoom dañ koy jox àtteb jullit duñ xool baayam lu mu doon safaan biit bu amoon noonu lay demee bu màgge woon ci biir ñu ay jullit moom it di def lañuy def ñoom ci wàllu diine ànd kook ñoom kooka dañ koy jox àtteb ñu bokk ci diine jooju kon duñ xool rek bàyyi ji waaye ñi màgg ci seen biir te ànd ak ñoom lañuy def ci wàllu diine ñooña lañ ko jox seen barke bu fekkee kon kii nii ma ko waxee la ci biir jullit ñi la màggee ànd naag ñoom itam la def ci seen wàllu diine bu bàyyam doo jullit itam moom àttab jullit dañ koy jox seen so jërëjëf bi kii day laaj mu ne koo xam ne dafa takk ab ñaareel ñaareel bi ak aaw bi ñoo bokk benn dëkk bu nekk waaye ñaareel bi say seegut mu nekkoon ndax da koy jox ay ni muy joxe aaw bi ay wala déet waaw da ko jox ay moom dana ko jox ay dana ko jox ay waaye nag duñ sart ñu tolloole ku sëy si ak ku sëy siwut ñoom ñëpp ay soxna lañ soxna su ne yeyoo ay waaye nag ki sëy seeg ki sëy suut kenn du wax ne dañuy tolloole ak ay waaye dañuy seet lu mën a nekk dañuy seet lu mën a nekk moo xam dañu bokk benn dëkk moo xam bokkuñ benn dëkk dañuy seet la mën a nekk ñu waxtaane ko ba juboo ko tam mën a nekk ba juboo jotam mën a nekk te góor gi man ko maanaam waaye duñu wax ne dañuy tolloole waaye nag dina amuk ay it nag dana mu ayib donte benn benn benn yoon lay doon ci yi wala benn yoon ci ayu gis wala lam man daal tam lam man tam yenu maanaa rek dañ cey dëppoo waaye nag dana amuk ayib waaye nag du wax ne day tolloog day tolloog ci sëy si moom nekk kër borom kër bi sëñ Cheikh kii moom day laaj mu ne ndax ab jullit sañ naa julli ci barab boo xam ne xamul ba xam ndax laab na wala déet wala bu ñëwee daa war a laaj ba xam balaa muy julli waaw ku ñëw ci béréb xamul laab naam laabut waaye amut itam leen na luy tax mu jàpp ne laabut amut lenn luy tax mu jàpp ne laabut na ko jàppeelu laab rek kenn laaj loo ko dara itam na ko jàppeelu laab rek bu doon nag béréb bopp la ñuy gën a séentu mooy laabut la ñuy gën a séentu mooy mu bañ a laab waaye taxut nag mu xam ne laabut boobaa kon man naa laaj moom ndax fii liñ ci gën a séentu mooy ñàkk laab bi lañ gën a séentu waaye nag amul firnde ci ne laabut booba mën naa laaj waaye bu bu demewul noona nag béréb la daal boo xam ne rek moom daa xamul nu mu demee rek loolu kenn sant kenn sant ko mu laaj ginnaaw béréb la boo xam ne bu mën a laab la rek séentu wuñ ak ñàkk a laabam séentu wuñ gënuñoo séentu gënuñoo séentu ñàkk a kon kenn du ko laaj kenn laaj loo ko ko jàppalu laab julli bu xamalee boppam ne laabul nag du fa julli bu fekkee dañoo gën a séentu ak ñàkk a laabam it mën naa laaj mën naa laaj ku fi ku fi dëkk xëy na ndax laab na wala déet bu ne ko laab na it mu julli bu ne ko nag mu bañ a julli waaye bu sukkandiku rek ci boppam ba bañ a julli suñ seet kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy liggéey ci assurance nekk fa lu mel ni kii di liggéey ci wàllu service commercial wala ndax benn place ci place ci société boobu daal waaw wàllu assurance de dafa am yaari xeet yoo xam ne benn xeet bi moom dëppoo nañ ci ne dagan na waaye am ci xeet woo moom ñàkk dagan bi dañ gën a jàpp nga daam lu ñuy tuddee assurance boo xam ne moom jàppalante la dimbalante la ak jàppalante ak assurance boo xam ne nag daa am ku ko taxawal ngir wut ca xaalis boo xam dafa am ku ko taxawal ngir wut ca booba lañ naan moom daganut ndax nit ki nga xam dafa am sa moom ubbi ci assurance nit ñi ñëw bi assure lañuy assure assuré moo xam lu man di doon di ko fay ngir bu ñu àggee bu ñu tollee diggante mu jox mu joxaat leen waaye moom mi ko taxawal moom xaalis la ci bëgg te da ko ci am itam da ko ci am ndax ñiy taj liñ koy jox ñay aajoowaay ñu jox leen mën naa am la muy joxe mooy gën a néew liñ ko jox loolu ci ëpp nag loolu mooy nekk bénéfice am moom moom mi ko taxoon moom kon wut ci xaalis la jublu moo tax dañ naan commercial la loolu dañ naan daganut ndax mooy kuy wut xaalis la te nam koy wutee ak leer amu ci ak leer lënt da caa bari lool lënt da caa bari ndax moom mi ngi joxe ñu di ko jox te xamut lim nar a joxe nu mu toll bu xamee liñ ko jox nu mu toll it li muy lim nar a joxe moom xamut nu mu ndax xamut ñan ñoo fi aajowoo ñu leen di ñu leen di eh, jox dara ngir assurance te weccee nag buy am ciy joxe daa war ku nekk li muy jox dañoo war a xam nu mu muy ñaari ñaari wàll yi ko séq bu nekk la ñuy joxe dañ ko dañoo war a xam na muy toll ñu mel ne jaay ak jënd kii jaay li muy joxe dañuy xam nu mu toll kii jënd itam li muy joxe muy njëg dañuy xam nu muy bu deelee day mën a moom it ci diggante weccee la te weccee gi nag am na ci wàll bu ñu xamul na muy toll loolu la ñuy lënt lënt nag bu amee ci ci weccee rek du dagan loola mooy tax ba ñu ne bi nga xam ne moom commercial la mooy daa am ku ko taxawal ngir wut ci xaalis te boobu nag daanaka moo am ci àddina sépp daanaka moom rek am ci àddina sépp am na ñu taxawale assurance yoo xam ne ngir mu dëppoog lislaam xëy na bëriwut rawat na Sénégal euh, yooye lañ ne moo dagan yooye mooy amut ku ko taxawal ngir wut ci xaalis waaye ay nit a dajaloo rek kenn ku ne ñu ne nag kenn ku ne joxe nàngam bu ko defee lii ñu dajale nag ku ci aajowoo taxaw ñu taxawu ko ci nga xam ne amul kenn ku ci bëgg benn dërëm bu koy buy si ci moom mooy amul kenn kon koo xam ne moo moo ko taxawal mu wut ci xaalis waaye ay nit a daje rek dajale ku nekk di joxe nangam saa bu ñu demee nag ba am ku ci aajowoo taxaw ñu taxawu ko ci loolu dimb dimbalante la buntu dimbalante lay dugg waaye dugg ci buntu wut xaalis booba la ñu wax ne moo dagan bu ko defee nag bi ci dagan liggéey ca dagan na bu ci daganul liggéey ca du dagan bi dagan kon mooy bi nga xam ne bu jàppalante la bu dimbalante la mooy boo xam ne amul kenn ku ne ci ginnaaw ku cay wut xaalis bi daganut nag mooy bi nga xam ne am na ku ne ci ginnaaw da cay wut xaalis la ko tee dagan mooy lënt lënt li am ci la muy joxe moom liñ koy jox mën na koo xam ndax kenn ku ne lu muy jox dana ko xam waaye la muy joxe moom la mun ta xam mën nañ koy jox lu bari ba noppi ñay aajowoo mu mu jox leen duñ bari wala safaan bi naa am ñu jox ko ñi aajowoo mu jox leen bari lool kon xamut muy joxe xamut muy joxe weccee la te moom li muy joxe xamut nu mu toll loolu moo tax ñu bañ ko lu ci ne nag bu daganee liggéey ca dana dagan bu daganut liggéey ca du dagan jërëjëf sëriñ bi kii day laañ mu ne ndax ku dul ab jullit bu faatoo ndax ab jullit sañ naa dem teewee waajtaayu denc ga jullit sañ naa sañ naa teewee denc ku dul jullit sañ na koo teewe sañ na caa sañ naa bokk ci tee ci denc ku dul jullit liñ sañul rek mooy ñaanal ko suñu ko ñaanal bu dul jullit moom bu xasee faatu ab jullit sañu koo ñaanal moo xam ma ngi ca denc moo xam nekkul ca denc suñu ko ñaanal loolu yàlla ko tere tere tere yoon wu leer ci alquraanul karim da ko tere yoon jëm tere wu leer nañ mu wax ne benn jullit sañut loolu itam sañu ko kon beneen jullit itam sañu ko di ñaanal ku dul jullit bi faatoo ba noppi buy dund mën nañ koo ñaanal mën nañ koo ñaanal yiwu àddina yiwu àddina mën nañ koo ñaanal dul jullit mën koo ñaanal gudd fan mën koo ñaanal wërsëg mën koo ñaanal wér yooyu yëpp muy njariñ àddina waaye ci xas faatu nag soxlawul wërsëg soxlaatu ko soxlaatul wér soxlaatul xaalis njëggal ak yërmande rek la soxla te loola yàlla neen du ko du ko ko jox moom kon boo ko ñaanee day mel ne yàlla neen du def dara ba noppi nga ne nga ne ko nag def ko yàlla nee na moom du yërëm du jéggal ku dul ak ku faatoowul ak ngëm ba noppi am ku faatoowul ak ngëm yow nga nga naan yàlla yàlla na ko yërëm kon day mel yàlla nee na du def nangam ma def nga naan ko def moo tax loolu kenn ko sañ ñaan rek lañ dul sañ ñi nag ci jamono toll ci ay maslaak ay yu mel noonu dem na ba am ñu mu yóbbaale ba ku dul jullit dafiy jóge ñu di ko ñaanal kon nag jomti lu réer ndax dafa leen nañ ci alxuraan moom tere gi ñu ko tere àddina nañ ci seq ay masla nañ ci seq ay jëflante yu rafet waaye nag bu àggee fenn fi nag kenn ku nag day toog day day day yem fa muy fa mu war a yem fa mu war a yem mooy maslaama àddina yëpp mën koo def ba bu nga caa ànd ngaa jaale mën ngaa dëfal lépp mën nga koo def waaye àgg nag ci ñaanal ko moom boo yàlla dana du ma def nangam noppi nga bëgg koo wax dana jëfan loolu incha euh, lan mooy atteb laal gët wala parfum ci bëccëgu weeru koor wala jëfandikoo diw yi ñuy diw ci yaram ngir bañ a weex wala ngir defar saw yaram ah yooyu yëpp de dara nekk ci yooyu yëpp dara nekk ci diw diw nit kuy diw yaramam ci weeru koor dara nekk ci nit kuy laal xet gu neexit kuy def ci ci yaramam walla ci yéreem xet xet gu neexit dara nekku ci muy parfum dara nekku ci ci weeru koor ak wax bu mën doon moo xam suba gi la moo xam ci gi la moo xam gi la suñu seex kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteb koo xam ne daf doon soccu ci bëccëgu weeru koor am yu dagg jàll ci biir ci ci ci biiram mu war na ko daal muy laaj ba xam ndax loolu dana yàq koor wala déet déedéet bu dee bu dee bu dee tayu ko kuy sàcc la am dammit wala ruusit bant yi lu jàll ci biiram loolu loolu dara newu ci lu mu jubluwut la lu mu tayut la waaye xeet yi yépp rek liñ ciy digal liñ ciy digal ku woor mooy lu mu ciy def mu tey ci mu tey ci bañ cee bañ ëppal daal bañ cee ëppal buy socc mu xam ni mu koy defee bu doon borosu itam sañ na ko waaye moom moo xam ni mu koy def ba buy jàpp sax gis nga dañ naan ko buy gàllaxndiku sax na ca tey buy saraxndiku na ca tey bañ rek am lu jàll waaye bu ca teyee ba noppi am lu jàll nag loolu dara newu ci loolu du yàq dara moo xam ci sàcc mi la moo xam ci jëles na suñu seet lan mooy teggin yi nga xam ne dañoo war a sàmmoonteeg moom ci diggante mbokk yi ak dëkkandoo yi nga xam ne sax ñu ay jullit waaw ku am mbokk yu dul jullit wala moom dëkkandoo yu dul jullit yan teggin la war a sàmmoonte diggam ak ñoom daanaka amul wuute diggante ku dul jullit ak kii jullit kii mbokk tey jullit ak kii mbokk te du jullit li ngeen di seq daanaka amul wuute kii dëkkandoo tey jullit ak kii dëkkandoo tëdu jullit li ngeen di seq daanaka amul wóote amul wóote ci bi moom jëflante bi ngeen di seq wuute amul bu dee dëkkandoo dëkkandoo bu man di doon lañu ñu war a seq ak moom mooy moytu koo lor te di ko jariñ suñ kam kàttan ñaar yooyu rek la li ko moytoo lor lépp luy lor ñu moytu ko koo jëmi lépp luñ ko mën a dimbale itam man ko ko defal ci lu baax itam ñu defal ko loolu kay jullit ak kadul jullit ñoo ci yam bu dee mbokk itam liy dëgëral ak mbokk moom it moom lañ sant nit di ko def ci ay bokkam moo xam ay jullit lañ moo xam duñu ay jullit kon ki dul jullit li ngay def yow sa digg ak moom moog li ngay def sa digg ak ab jullit ñooy yem lu ci jëmut ci wàllu diine rek lu ci jëmut ci wàllu diine rek la ngay seq ci ab jullit moom ngay seq ci dul ci dul ab jullit moo xam ci wàllu mbokk la moo xam ci wàllu dëkkandoo la sëriñ si kii moom nee na da doon wérd yàlla dogal kurus gi wante xamatul fu mu toll mu nekkoon lu muy def maanaam xamatul daal ñaata la am ci lim mu nekkoon lu muy def kon loolu day day nattale ñaan nattale day nattale rek mën naa mën naa xalaat ne xam naa ne daal moom matoon na nàngam moom lu mel ne bu dee lu am ay kii la xam na ne moom xaaj bu njëkk bi weesoon na ko ci misaal waaye xamatul nag fan na ci tolloon ca la ko weesu bu nattalee la xam ne moom amoon na ko moom mën naa sukkandiku ca loolu àggale bu fekkee nattale nattale xamul mënut am lenn lu sukkandiku ba jàpp ne daal fii la tolloon wala fii la jege woon kon mu tàmbaliwaat rek mu tàmbaliwaat rek day nattale bu mënee am lum sukkandiku ba xam ne lii moom xam naa ne amoon naa ko loolu mu jàpp ne amoon na ko moom li mu xam ne amoon na ko mu sukkandiku ci loolu àggale bu mënta am loola nag mu tàmbaliwaat rek. kii moom day laaj mu ne lan moo wutale sikk sàkka ak lañuy tuddee jax-jaxi was-wasa hmm. ñaar ñaar yépp sikki sàkka la waaye li nga xam ne nag dañ naan li nga xam ne am na am na fu mu tege li nga xam ne am na fu mu tege rek lañuy ñuy tuddee chakk li am fu mu tege li amul fu mu tege nag lu dul xelum nit ki rek loolu mooy waswasa bu dee sikk sàkk day am fu mu tege bu dee was muy sakk bu dee sakk bu dee waswasa mooy lu amul fu mu tege lu dul ci xelum nit ki rek daal ñoo xam seen xel rek moo leen di luñ def rek seen xelum kese rek moo naan leen dafa mel ne defoo nangam de dafa mel ne defoo nangam dafa mel ne defoo nangam dafa mel ne nangam taq na la xelum kese mi rek bu dee chakk nag mooy loo xam ne daa am daa am daa am daa am fu mu tege daa am daa am daa am lu nit lu nit ki sukkandiku ba jàpp loola mën nañ ne it chakk mooy loo xam ne tax taxawut ak nit ki taxawut ak moom léeg-léeg lay am rek lu tax taxaw nit ki nag muy si sàkk su taxaw nit ki nag lañuy tudde wasoos li leen wutale mooy sikki sàkk su taxawut ak nit ki wala sikki sàkk soo xam ne am na fu mu tege sikki sàkka jooje nit ki dana ko bàyyi xel dana ko bàyyi xel lu mel ne kuy julli ba sàgg mu sikki sàkka ne man ñaar rakk laa amagun wala ñett rakk bii ma nekk ndax ñetteel bi la wala ñeent walla ñenteel bi la te du doon lu koy dal lu bari lool waaye tey daal dal na ko kon sikki sàkk jooje dana am jeexit mooy dañ naan ko li gën a néew ngay jàpp yaa ngi naan ndax ci ñeenteel rak nga nekk wala ñetteel jàppal na yaa ngi ci ñetteel kon jàppal na ñaar nga am loolu bu dee sikki sàkk kon loo ci dana ci bàyyi xel bu dee waswasa nag muy muy muy jax jaxe ji suñ seex wax mooy sikki sàkk soo xam dafa taxoog nit ki daanaka saa buy julli rek saa julli rek mu dal ko loola du ca bàyyi xel moom bu fekkee saa julli rek xelam daan amagoo ñeent amagoo ñett de ñaar nga amagoo saa bu jullit bis bu ne rek dana ko def boobaa du du bàyyi xel loola mooy la gën a bari lay jàpp bu ne ko amagoo ñett ñaar nga amagoon danaan ñett la am kon la mu koy bàyyi bañ loo rek lay def loolu kon mooy du bàyyi xel ci sikki sàkk sàkk sikki sàkk su taxoo ak moom waaye sikki sàkk su taxoowut ak moom nag da koo dal tay rek moom da ciy bàyyi xel boobaa la nga xam ne moom sikki sikki sàkk wu ca loolu lay jàpp bu ma naan am naa ñaar wala ñett kon ñaar yi moom sikki sàkk amu ci ne am na ko kon ñaari lay jàpp bu doon nag sikki sàkk su taxaw ak moom la bu naan am naa ñaar wala ñett ñett yi lay jàpp mooy kon du bàyyi xel ci sikki sikki sàkk yi sëñ mhm. kii moom day laaj mu ne lan ngeen di laa biire koo xam ne dafa bëgg takk soxna bàyyam na ko xaaral ba noppi ci njàng bi door a takk ku bëgg a takk soxna bàyyam na ko négal ba jàng ba noppi léegi day xool bu fekkee néeg ba jàngi ba nopp man na ko man na ko mooy ragalul mu andil ko fitna bu ragalul mu andil ko fitna na wax li ko bàyyam li ko na def li ko bàyyam wax fekkee ragalul bu bëggee nekk loola moo indil ko fitna na def li ko bàyyi wax na ni bu jàng ba noppi bu ko wàññi dara bu fekkee ragalul ma ne bu ragalee moo indil ko fitna rek ah na waxtaan ak baayam nag ba baayam ànd ak moom ci mu denc rek ndax fitna dañuy bañ ci ñàkk a denc loo xam ne moom bu dencul ragal na fitna ci boppam kooku moom te mën naa denc kooku denc day doon farata ci moom farata nag kenn du ko tere nit farata kenn du ko tere nit bu àggul foofa nag du doon farata ci moom lu dul farata nag way jur bu ko teree doom doom ja war a mën na ko caa topp topp ko ca moo gën topp ko ca moo gën kon bu nekkoon négal ba jàng ba noppi te moom bu négee ba jàng ba noppi itam du ko andil jenn fitna kon na def li ko bàyyam wax bu ko naree andil fitna rek na waxtaan ak baayam ba baayam ànd ak moom ci mu denc ndax denc bu àggee foofa day doon farata ci moom loolu doon farata nag kenn du ko kenn du ko tere kenn incha allah jërëjëf sëriñ Cheikhuna kii mu ne ndax dagan na ci góor muy létti kawaram ndax dagan na ci góor muy léttu loolu de dañ naan dañuy xool béréb bam mu nekk béréb ba mu nekk fa mu nekk daal ndax góor guy léttu xamees na ko fa ndax xamees na ko fa ndax xamees na fa góor guy léttu ndax aadala fa ndax luñ fa nangu la bu fekkee lu luñ fa nangu la aada fa dara nekk na dara nekk na mën na koo def bu fekkee nag fam nekk góor gi léttu du luñ fa xam du lu du lu fay aada du luñ fa nangu kon du ko sañ def ndax boobaa bu ko defoon day dugg ci ndax bu fekkee aada woowuñ ko mooy kon day mel dañ naan jigéen mbirum jigéen la bu dee foo xam ne léttu mbirum jigéen la létti jigéen la jigéen a koy def kon bu ko góor defee day mel na day nuru nuru lu jigéen te loolu yonent bi da ko tere sallallahu alayhi wa sallam dafa tere góor guy nuuru nuuru lu jigéen tere it jigéen guy nuuru nuuru lu góor nuuru nuuru lu ci wàll yépp wàll yépp loolu nag daa aju kon ci béréb yi lu mel ne suñ béréb yi noonu Sénégal ci boppam rek sàkkantuma nag Touba moom lépp mbirum jigéen lañ ko xamee jigéen lañ lañ lañ lañ jàpp ne mooy lépp kon góor bu fi lëttu la muy def baaxut góor bu fi lëttu la muy def baaxut muy senegal gépp sàkkan Tuuba nag Tuuba ak yeneen dëkk yi nga xam ne euh, nuru nañ Tuuba bu dee nag am na ñu yàqu ñoom yoo xam ne yàqu nañ ñoom ba àgg ci euh, létt góor ak jigéen a ca yam nangul nañ ko niñ ko nangule jigéen lañ ko nangule góor ñu yàqu ba àgg foofu ñoom góor gu fa léttu aayut du fa aay du fa aay nun nag xëy na ci yoon wi waaye àggun foofu noonu ci yoon wi ndax mi ngi bari góor ñii léttu ñu ngi bari te bu ñu demee demee demee dem nag ba ëpp wuur rek mooy dañoo àgg ci yàq googam dañ ci dañ ci àgg noonu tam boobaa du aaye ndax yàqu nañ ba noppi waaye bi ñu yàqoogul ba noppi nag moom day aay ndax dañuy bañ a yàqu kon bu dee yëpp jigéen la daal góor war ta létt buñ demee nag ba moom ma leetuñ ko jigéen kon moom bu ko góor defee tam wàññiwul dara moo xam ci létt la moo xam ci wàllum col la wàllum col it noonu rek nga demee ñu yàqoo yàqu ba ñoom ràññaleetuñ colu góor ak colu colu jigéen foofa moom góor lu mu fa mën di sol euh, duñ duñ ko wax ne lii colu jigéen la ndax amul foofa amul góor ak jigéen ci wàllu col nun nag àggagun foofa kon nun colug jigéen am na colug góor am na góor guy sol colug jigéen day mel ni góor guy nuru nur lu jigéen jigéen ji sol colug góor day mel ne jigéen ji nuru nur lu góor te yu ko tere yëmut ci tere ko waaye dafa ñaan yàlla sax ki koy def dafa ñaan yàlla góor guy nuru nuru lu jigéen ak jigéen bi nuru nuru lu góor sëñ kon bu dee fi nun daal létt góor gi léttu moom jaaduwut bu dee ci ñeneen ñoo xam ne nag ñoom seenum yàqu àgg na ci góor ak jigéen yem ci létt foofu moom du fa aay sëñ Cheikh jërëjëf sëriñ Cheikhouna kii moom day laaj mu ne li ñuy tuddee vente en ligne njaay mi ñuy njaay ci internet bi mu ndax loolu dina wér waaw loolu de man naa wér mën naa wér mooy bu yeneen sart yi tax a njaaye yi tax njaaye wér sart yooyu dajee rek mën naa wér te njaay moom dëgg-dëgg li koy tax a wér mooy ñaar ñi ko séq dëppoo nañ mooy ci seen coobare seen coobare lañ ko defe te it yi ñuy weccee itam lënt amu ci lënt li ñu doon wax léegi lënt amu ci kii jënd xam na li ñu jënd lan la kii jaay itam xam na liñ koy fay lan la kon moo xam dañoo bokk teew moo xam bokkuñ teew bu yi amee rek jaay mi bu dee lañuy jaay itam luñ sañ a jaay la luñ sañ a jaay lu lu dagan jaay la bu yooyu amee rek moo xam ñi ñu ko set dañoo bokk teew moo xam bokkuñ teew njaay ma day wér nañ fayantee nuñ mën di fayantee njaay ma day wér sëñ Cheikh kon li ñu tuddee euh, yee amee rek dana wér sàtt yi tax njaay wér daal bu amee rek dana wér ñu bokk teew ñàkk bokk teew moom amu ci amu ci jeexit sëñ Cheikh kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci góor muy foo Camille Labat ginnaaw boo xam ne joxe na première cadeau ba noppi waaw labat labat mooy góor du wone yéenéem ci takk diw sàngam wa wane na yéenéem ci takk diw sàngam loolu mooy labat kon day mel ni bu labat amee ñaar ñi day mel ni diggante am na seen diggante ku ne digg na moroom ji kii digg ne ko ne dana ko takk kee digg ne ko ne itam dana nangu muy kii ñaan diggee na ne dana ñaan dana ñaan si bis jàpp gu ñu xëy na waaye dana ñaan si bis kii may itam nangu na ne bu ñaan see mu may ko kon ku nekk digg na moroom ji kon seen diggante ab digg moo fi dox waaye lañ sañoon a séq ba lo ba digg boobu amu ko seen diggante loola rek lañ sañu séq ba nëgëne loola rek lañ sañu séq fii ak mayewuñu leen fii ak mayewuñu leen amut lenn luñ sañu séq lool sañuñ ko woon lu jiitu labat gi di am mooy di tàmbale ci wéet wéet sañuñoo wéet nañ ko sañewutoon lu jiitu labat di am bu lawat amee itam du leen may ñu sañ a wéet mayee rek moo leen di may ñu sañ a wér maye leneen sàkkantuma leneen sañu ñoo wér mooy ku ci doon fekk moroom ji fa mu dëkkit dañuy bokk toog ci kanam kilifa yi fa dëkk ci kanam kilifa kilifa yi waaye war ñu sañ ñoo wéet sañ ñoo nekk ci néeg ñoom rek walla ci saal ñoom rek sàkkantuma nag leneen kon labat daal mayewut jenn àq joo xam ne euh, doxutoon diggante ñaar ñi lu jët labat gi di am sëñ euh, kii day laaj mu ne ndax dagan na ci wayjur moo xam wu jigéen walla wu góor mu jël alali doomam maye ko te doom ja jox ko ci ndigal way jur wu jël alal doomam maye ko te doom jox ko euh, alali kenn la kenn wërta jël ci lu dul ndigalam alali kenn la kenn wërta jël ci lu dul ndigalam mooy ci lu dul mu ànd ci fiñ mayee ku jël alali kenn tàmmu ca ndigalam mooy koo xam ne moo ko war a dundal ku war a dundal nit te man ko ba noppi bañ koo def ku war a dundal nit te man ko ba noppi bañ koo def moom mi ñu war a dundal moom mën naa def defi pexe ba jël ci alal ki ko war a dundal lu tolloog nag la mu ko war a dundale ak xam daal ndax ak xam la loolu ak xam noonu day mel ne lu ca moom la lam ca moom mooy li mu ko war a dundale moo ko moom ndax àqam la loola moom moom mi ko war a jox bu ko joxut te mën na ko sañ naa def fexe moom ba jot mooy mën na ko ginnaawu moom ba jot waaye bu génnee loola kenn sañu te jël alal yi jàmbur ci lu dul coobare loolu tam cosaan la fi ñu ko sukkandiku moo di ne yonente bi sallallahu alayhi am na ñu mës a tuub ñaar ñaar ñuy dencante abu sufyaan ak hind soxnaam dañoo tuubandoo ak seen doom muawiya biñ tuubee nag hind moom daa doonoon kilifa daal koo xam ne moom day wax xalaatam te it euh, doona yonte abu sufyaan mi daal mooy sama boroom kër waaye dafa nay maag samay samay doom du nu jox du nu dundal ni mu nu war a dundal daal du nu jox lu nu doy ci alalam te am na ko ndax na damaa def pexe ba ba jot ci li ñu war a dunde noonu mu ne ko man nga ko waaye nag na jaadu na jaadu mooy na yam na yem ci li nga xam ne moom ngeen aajowoo bu ko ginnaaw rek di jël li ci def leneen loo xam ne du farata waaye liy farata ci yéen te war leen koo defal te ba te man ko te bañ ko sañ ngeen def fexe ba jot ci yéen di ko jariñoo bu génnee loolu nag euh, doon doon way jur lu may àq nit ki muy jël alali doomam di ja def la ko soob te doom ji àndu ci amul àq jooju bu fekkoon ne ci safaan bii nag la way jur dafa amul te doom ji am doom ji ko war a dundal doom ji ko war a dundal boo ko doom ji waree dundal te man ko te defu ko nag boobaa way jur naa def pexe ba jot ci li war a dunde moom ci alal doom ci loolu dëgg-dëgg bu ñu ko seetloo mooy lam moom la fexe ba jot ci rek ndax li moom daal nekk ci loxol kenn kenn ka bañ ko koo jox mu def fexe ba jot mooy ki ñu war a dundal ki ko dundal bañ koo dundal na mu ware sañ naa defi pexe moom ba jël ci alali kooka la muy dunde bu génnee loolu nag kenn sañu tëjët alali kenn ci lu dul coobareem insha allah kii moom de laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne da doon jàpp ci biir njàpp mi muy sikk ba xam ndax dara génn ci moom wala déet waaw ah, bu dee day sikki sàkk ci biir njàpp mi dañ naan ko bu bàyyi xel bu bàyyi xel ci loolu buy sikki sàkk ndax dara génn ci moom déet waaye sikki sàkk la rek amut amut fenn fu mu ko teg boobaa du ko bàyyi xel day jàpp ne dara xewul rek mu àggalem jàppam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa mas nañ koo wax ne ko daal dafa am koo xam ne buy julli saa buy julli rek day day day xalaat daal ne day mel na daam buy génn ci moom yonente bi ne ko fii yëg déggul dara mbaa dara xeeñ ko bu mu jàpp ne dara xew na yëg déggul dara mbaa dara xeeñ ko moom jàpp ne dara xew na bu déggee dara moom nekkatul sikki sàkk bu ko dara xeeñee nekkatul sikki sàkk kon mooy sikki sàkk si rek kenn lu ci kenn ci bàyyi xel kii jàpp ba muy julli sikki sàkk su naan ko am na lu génne ci yow loolu du ci bàyyi du ci bàyyi xel day jàpp ne dara xewut yëg déggul dara mbaa dara xeeñ ko suñu Cheikh kii moom de laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne dafa takk soxna laataa muy jaxasoo ak moom mu dem njaaloo ak geneen jigéen mu ne ndax kon njaalo googu mu njaaloo dañ koy jàppee ku sangewu wala déet hmm. ku sangewu euh, sange ñu wax sange moom njaaloo du ko du ko du ko def nit njaaloo du sangeloo nit sangeloo nit moom euh, sëy bu wér moo koy moo koy defal moo koy defloo nit ku sëy sëy bu wér te sëy bu wér boobee tam mu jote ca ak kam ñu sëyal booba lay door a sangewu sangewu mooy koo xam ne bi sangewoo ba noppi bu njaaloo woon ginnaaw bi kooka moom dee su ko dóor ay yar waaye dañ koy sànni ay xeer loolu mooy ki sangeem la koy def nit nag mooy mu sëy sëy bu wér sëy bu wér boobee mu seq ci akam doon sëyal waaye njaaroo bu njaaroo du tax mu jàppe bu ko sangewu kon njaaloo bi mu def noonu dañ koy ay yar lañ ko cee dóor rek ndax ñu ngi ci sëy bu wér waaye sëy bu wér bi euh, jootu cee seq ci muy sëyal kon sange gut sange woo Euh, bi njaaloo kon dañ koy dóor dañuy dóor rek ku sangewul waaye deesu ko deesu ko sànni ay ay xeer sëñ Cheikh kii moom day laaj mu ne ndax azaka day war ci ñi nga xam ne dañoo génn seenu réew dem ci réewum jàmbur ak buñ ko dee génne nan lañ koy génne waaw dana leen war moom azaka moom ki muy war duñ ci xool fan daa nekk cim réew moom nekkul cim nekkul cim réew bu man di nekk alal ju dajale sart yi asakay ware bu ko amee rek asaka da koy war ni ñu koy génnee itam mooy ni ñëpp yi génnee asaka rek moom it an amut nu ñu koy génnee boo nekkee ci sam réew ak nu ñu koy génnee boo nekkul ci sam réew lan la ngay am ni muy toll ba asaka war ci lenn li la bu ca waree itam lañ nga ciy génne muy toll lenn li la xëy na joxe gi xëy na la bëgg a wax kon joxe gi joxe gi itam joxe asaka it la ca jaadu mooy ñu joxe ko fi mu amee fi mu amee bu dee kuy liggéey la fa muy liggéeyee foofu la joxe asaka bu dee ñu ko yeyoo ñagaf bu dee ñu ko yeyoo nekkuñ fa nag lay door a jéggi seeti feneen kon ki bitim réew bitim réew nit ñi dañaan bitim réew rek waaye bitim yi ay jullit dafa nekk du moom mii fa nekk ab jullit la noonu mu fa nekk noonu la ñeneen ñu dul jeex ay jullit moom ay million ña ay jullit yoo xam ne am na ci ñu seen loxo jot seen ginnaaw am na ci ñu seen loxo jotul seen ginnaaw ñu seen seen ginnaaw dañoo yeyoo asaka kon fu nit mën a nekk ci àddina si bu bu ko asaka waree rek na gëstu na gëstu fa mu nekk ndax dana fa xam ñu ko yeyoo bu ko xamee mu jox leen ko wala mu jox leen ca mu jox leen la gën a bari la gën a bari bu fekkee yell na mu joxe ko fa mu nekk mu joxe ko fa du tee nag mu mën a yónnee lenn yi am réew rawatina bu dee ñoo xam ne yaayoo nañu asaka te doon ay bokkam bokkam yoo xam ne nag warul leen a dundal ay nijaayam ak doomi nijaay ak bàjjen ak doom bàjjen ak yu mel noonu wala mag wala rak ñoom ñëpp nit ki war leen a dundal bu ñëwee asaka mën naa joxe fi mu nekk aslëf wala la ci ëpp sax la du aslëf waaye la ci ëpp waaye mën naa jël aslëf nag yónnee ko mbokkam ya nga xam ne ña nga ci réew ma te yeyoo waaye nag warta jël lépp di leen ko yónnee fi mu nekk am fi ñu ko boobu ñu ko fi yeyoo xamu ko bokk xamu ko gëstu na nag waaye xamu fi ñu ko yeyoo ndax di ko yey jullit la doon mën na tey gis ñu yeeyoo ñu ñu seen loxo jël seen ginnaaw waaye du ñuy jullit parce que jullit lañ koy jox kon mooy gisu fa jullit yu ko yeeyoo kon nag sañ na ko yónnee moom euh, fa mu fa mu jóge woon ñu jox ko fa ñu ko yeeyoo rawatina bu fekkee dañu doon ay bokk ay bokkam ñu ko yeeyoo sëñ Cheikh jigéen a ngi joo xam ne dañ ko takk ba noppi mu lànk ne léegi bëggatul ki ñu ko may mu ne ndax su boobaa kon góor gi lim jotoon a joxe dañ ko koy delloo. jigéen hmm, bi ñu mayee ba noppi bi ñu ko mayee ba noppi mu daal mu mu mu bañaat sëy bi daal mu bañaat sëy bi ndax dañ koy delloo ndax day delloo li ko joxoon li euh, ngi aju ci lu tax mu lu tax mu bañ tax mu bëgg a génn ci sëñ bi lu tax lu tax moo xam teel na moo xam teelut mooy ku ñu door a maye rek wala maye nañ ko sax mu dem sëy ba am fa ñaar fukki at jigéen daal saa bu demee bëgg a génn cib sëy dañ naan ndax li tax mu génn cib bi lor ju muy loru la moom jigéen bi bu dee lor ju muy loru la kenn suñu koo laaj benn dërëm bu dee jigéen ji day loru ci sëy bi ba tax mu bëgg cee génn kenn sañu koo laaj benn dërëm moo xam sëy bi yàgg na moo xam yàggut bu fekkee ne daa bëgg génn sëy bi te loru amut lor jum wax ne moo tax mooy jàmbatul dëgg-dëgg jàmbatul kim seqal ne da ko daa am lu mu gàttañ lu ci li ko war wala daa am lu mu ko war a defal te deful ko waxut yooyu yëpp dana daal moom ci boppam daal moo dem rek daal ba munta wéyati kooku lañ sañ a laaj lañ sañ moo xam sëy bi yàgg na moo xam yàggul waaye ki nga xam ne moom da cee loru mooy day borom ko day jëflanteeg moom jëflante bu jaaduwut daa lu mu ko war defal lu mu ko defalut daa lu muy doxaleeg moom lu mu jàpp ne jaaduwut mooy dafa jàmbat ci jàmbat moom kenn suñu ko laaj dara benn borom kër bi doon nit ku yiw may ko baatam bu yiwut bëgg koo bëgg koo noggutu walla daal bëgg koo bunduxatal day dem ca yoon bu yoon gëstoo ba xam ne moo la ci dëgg yoon day leen di tàqale lu ci mën dara kenn sañu ko laaj dal bu dee koo xam ne jàmbatul nag waaye moom moo dem ba ne daal sëy bi daal man dama kiiwatul daal kooka moom la bor borom kër sañ na ko laaj la koy laaj it kenn du wax ne nangam la koy laaj duñu wax naan la ko joxoon laaj lu mu ko joxutoon waaye dañuy waxtaan ba jubóore moom daal sañ naa laaj nangam bu ko mënee ànd ca moom jox ko ko bu ko mënut ñu waxaale ba jubóo luñ dëppoo rek sañ na koo laaj mën naa doon lu mu ko joxoon mën naa yées lu mu ko joxoon mën naa ëpp lu mu ko joxoon waaye na fekk nag jigéen ji loruwut jàmbatul waaye moom moo dem rek ba mun demati daal foofu rek lañ ko sañ moo xam sëy bi yàgg na moo xam yàggul bu fekkee dafa jàmbat nag dafa loru kenn sañu koo laaj dañuy yiw may ko baat mbaa ñu bañ a yiw moom mu dem ci yoon yoon moom dindi dindi sëy bi sëriñ Cheikh waa jii moom nee na day liggéey ci benn société boo xam ne day def transport société bi nag am na benn magasin boo xam ne fa la ñuy denc yenn bagage yi réer ci client mu ne ndax bu fekkee ne société bi moo ko jox lenn ci bagage yooyu sañ na koo jël walla déet waaw ah, waaw mooy société bu transport la léeg-léeg nit ñi seen bagage bagage yi ñu ciy fàtte da koy am fu koy denc fekkee nag moom da caa bëgg a may kenn ci ñu fiy liggéeyee ndax kooka dana ko sañ jël bagage yooyu de atteb atteb lu ñu for rek lay yor atteb lu ñu for lu ñu for mooy nit day dem ba yem ci dara te xamagut boroom walla boroom ñëw fàtte ko ci barabam moom bàyyi ko ci barabam lépp for la borom oto bi bagage moom yu fekk ci oto bi te xamut borom da for lu ñu for la ko luñ for nag dafa am atte atte luñ for mooy nañ ko yëgle nañ ko yëgle ci anam yu méngoo ak moom anamu yëgle yu méngoo ak lii ñu for bu dee loo xam ne dafa laaj ñu dem béréb sàngam wax ko fa nii rek loo xam ne dafa laaj ñu def ko ci wax ko ci ay rajo wala dafa laaj ñu def ko ci ay journaux lu mu laaj rek ma nga aju ca loole lan la ak nañ baaxoo yëgle lu mel noonu ku yëglee kon dañoo war a yëgle loola ci anam yañ ko baaxoo yëglee diir bu yanu maanaa itam diir bu yanu maanaa buñ ko yëglee diir bu yanu maanaa ci anam yiñ ko baaxoo yëglee te borom feeñut nag foofa ki ko for am na sañ-sañ buñ ko ci may may nañ ko mu jëfandikoo ko may nañ ko mu jëfandikoo ko waaye bi mu koy jëfandikoo it day jàpp ne saa bu borom feeñaay lu mu yàgg-yàgg da koy fay dana ko sañ dana ko sañ jëfandikoo tane nag saa borom fay mu yàgg-yàgg dinaa ko fay bu fekkee bagage yi def nañ ci loolu mooy fi ñu baaxoo yëgle bagage yi des ci oto yi yëgle nañ ko fa liir bu yanu maanaam te borom feeñu kon borom oto dana ko sañ jëfandikoo bu ko sañ a jëfandikoo nag dana ko sañ a maye waaye teewut bu koy maye it dana xam ne moom borom feeñatee ëllëg moom mooy mooy fay mooy fay borom bu àggut foofa nag du ko sañ bu jaaragul fi war a jaar du ko sañ a jëfandikoo kon du ko sañ maye waaye bu jaaree fi mu war a jaar ba noppi nag dana ko sañ a jëfandikoo bu ko sañ a jëfandikoo nag dana ko maye sëñ Cheikh kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne ci bëccëgu weeru koor dafa nelaw gént di jaxasoo ak jigéen bii na xëy na du sore bu jàlloon mooy gént ku ko def ci weeru koor moom dara nekk yàqu koor gi daal du yàqu koor day sangu rek waaye kooram du yàqu ni ñu ko waxee woon ci laaj bu jiitu léegi loolu bu génnee lay tax mu yàqu koor mooy bànneex bu ko baaxoo génne génne bànneex bu njublu bu njublu boo xam ne nit kee ko jublu tam baaxoo baaxoo koo génne mu génne ko ci la kooram di yàqoo te bu ko jubloo sax moom day def kafaara bu ko jubluwut la koor gi yàqu yem ca bu dee gént nag bokkut ci yooyu gént moom ku ko def lu mën di génn ci moom it sangoo koy war waaye koor ga moom du yàqu sëñ Cheikh laaj bi ci topp nee na lan mooy àtteeb wane nataalu nit ci lu mel ni panneau publicitaire yi te kooko joxewu ci ndigal loolu jaaduwut loolu jaaduwut tasaare nataalu nit te joxewu ca ndigal jaaduwut jaaduwut lu dul rek ñu xam ne dëgg la joxewu ci ndigal waaye xam nañ ne du ko naqari xam nañ ne du ko naqari bu ñu xamee ne du ko naqari bu ñu ko bu ca loolu amul nag mais daan na nañ dana ko naqari wala xamuñ ci dara xamuñ dana ko naqareem déet kon moom joxe ci ndigal rek mooy tax ñu sañ waaye bu ñu xamee ne du ko naqari nag buñ ci joxewul ndigal itam mën nañ koo def buñ ko defee dara waaye liy cosaan moom mooy balaa nit a tasaare nataaleb jàmbur di ko tasaare day fekk mu am ci ndigalam sëñ Cheikh kii mu ne ndax yére yoo xam ne dañ koo fóotee jumtukaay yi ñu fóote machine yi ñu fóote ndax su boobaa dina laab waaw dafa am ñu wax ne borom xam-xam yi laab moom muy sobe ndox rekk a koy ndox rekk a koy dindi waaye am nañu waxi ba tey te yan na maanaam wala moo gën a yan maanaam sax ne daal lu am solo mooy jëmmi sobe ji lu ko mën di dindi rek bu dañee jëmmi sobe ji lu ko mën di dindi bu dañee rek sobe si dañ ak lu ko mën dindi boobaa nag bu fekkee yi ñuy fóote yi ñuy fóote am na yoo xam ndox lay doon am na yoo xam ndox lay doon li am solo mooy na doon ndox mu dara raxut na doon ndox mu dara raxut ndax loolu moom mooy dindi sobe bu fekkee ndox moom wala moom mën naa dindi sobe bu fekkee nag du ndox waaye vapeur la am na yoo xam vapeur lañuy lañuy la ñuy kiyee fóote vapeur boobu itam bu fekkee day dindi jëm ñu sobe sa boobaa dana laab bu fekkee du ko dindi nag du dindi jëme su jëm ñu sa nag du laab loolu nag xam naa ñam am xam-xam ci wàllu yooyu li ñuy liggéeyee ñooñ xam ndax day dindi jëmmi la nekk ca yére ya wala déet te man am da koy dindi ndax naa ab tilim da koy dindi kon normalement day dindi jëmmi la ca nekk bu demee noonu dana laab ndax ñiy wax sax naan liyee laaba nangu nañ ne nangu nañ ne ab jant sax tàngooru jant tàngooru jant sax bu tàngalee lu amoon sobe bam deñ laab na kon leneen lu mën doon bu dindee jëmmi sobe sa rek euh, laab na kon bu fekkee machine yooyu daal danañ dindi jëmmi sobe sa bu dee ndox la moom leer na bu dee du ndox nag waaye vapeur bi moo koy moo koy setal dañuy xool ndax day dindi jëmmi sobe soo du ko dindi bu ko dee dindi rek kon dana laab bu ko dul dindi nag du laab hmm. lan mooy àttab koo xam ne da doon julli fàttee li xaam loolu de dara nekkut fàttee li xaam ak fàttee noddu ak bañ a bañ a li sax te ko bañ a noddu ko sax yàqu dara julli bokkuñ nekkut ci biir julli gi sax li xaam daa daa jiitu julli gi noddu daa jiitu julli gi lu ci na lu baax la lu ñu sàkku la waaye amu ci lenn loo xam ne bañ koo def dana yàq dara ci julli gi sëñ kii mu ne ndax julli naafila moo gën wala toog di def say zikkar tudd yàlla ak yu mel noonu naafilay weeru koor naafilay weeru koor ci waxtu ci waxtoom mais waxtu yi ñuy naafila ndax ànd ak ñi naafila naafila walla nga naafila sa bopp moo gën ngay def leneen ngay def yeneen yoo xam ne yu baax la yu baax yi moom dañoo bari lu ne nga ci sañ a def waaye nag lu ci am waxtu woo xam ne am na lañ ci gën a taamu waxtu woo nag loolaa ci gën waxtu woo weeru koor moom li ñuy wax naafile yi ci waxtu wi ñu koy defe def ko ci moo gën def ci leneen lu dul farat def ko ci moo gën def ci leneen lu dul farat kon waxtu wi ñu baaxoo naafila naafila ci ba noppi booy def leneen nga def leneen wala boo ko defandoo ak nit ñi itam na ko def ci guddi gi moom waaye bàyyi naafila ngir def leneen moom ci rawatina ci guddi weeru koor moom loolu gënut leneen la amut waxtu waxtu la soobee nga def ko wala mën ngaa bàyyi ba waxtu wala soob nga def ko naafila gi nag moom dañ koo sàkku ci guddi gi kon na ko def ci guddi gi lu nekk daal euh, waxtu wu ne lañ ca baaxoo def ci lu baax def ko ca moo gën di ca def leneen rawatina bu doon nag luñ digle luñ digle moom def lañ digle moo gën def lu diglewut ci waxtu sànq suñ seet kii mu ne ndax dañuy jàpp ne Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu ab royukaay bu ñu roy la wala ñun dañoo war gëm ru ne dañu war a topp aw yoonam rek yam ci nit yam ci yam ci di la lu xam ndax moom lenn la ñaari dëgg-dëgg lenn royukaay def ko royukaay ak ne da ngay topp aw yoonam ñooyam ñooyam du du lu wuute du lu wuute aw yoonam mooy lan aw yoonam mooy li mu nekkoon moom li mu doon def ak li mu doon deflu loolu mooy aw yoonam boo ko royee mooy li doon def ngay def kon yaa ngi ci aw yoonam yaa ngi topp aw yoonam boo toppee aw yoonam itam yaa ngi def li mu doon def kon yaa ngi ñaar yooyu xaj wuute wuñ mënut a nekk daal amut lu ñuy mën a teg fii ne lii mooy roy sëñ bi lii mooy topp aw yoonam nga xam ne bokkuñ bu la neexee nga def lii bàyyi lee bu la neexee nga def lii bàyyi lay loolu nekkul ndax ñaar yooyu lenn lañ kuy roy sëñ bi mi ngi topp aw yoonam kuy topp yoonu sëñ bi mu ngi koy roy ñaar yi duñ duñ dëgg-dëgg duñ ñaar bañ naan luñ ci luñ ci war a def siñ sax kii mu ne lan mooy àtte koo xam ne day naafila waroon na julli ñaar rakk sëlmal mu yokk ci rakkam ñetteel waaw loolu de da yokkaat rek da ci yokkaat ku bëggoon a julli ñaar rakka sëlmal daal di koy fàttaliku da ci yokkaat beneen muy ñeent da yokkaat beneen muy ñeent mu sëlmal rek bu dee naafila loolu rek lay doon moom ndax liñ ci taamu mooy muy bañ a tool ba ba ngay àgg ci wit wit bi moo koy toolal kon boo fa àggagul nag bu fekkee du guddi rawatina da nga ci dolli beneen rek mu bañ tool mu doon ñeent sëñ Cheikh euh, kii mu ne lan mooy àtte koo xam ne dafa woor euh, doon jàpp nag far yàlla dogal am lu jàll ba muy sarax ku mu am lu jàll ci mbuli gi waaw bu fekkee ëppalul ci saraxniku ko rek bu ci ëppalul moom ni ko yonent bi digalee ni mu diglee ne kuy woor buy jàpp bu mu ëppal ci gàllax buy gàllax ni ko bu mu ëppal buy saraxniku bu fekkee ëppalut lu ca jàll te teyu ko du yàq la bu ëppalee nag bu jàllee da ko yàq ndax day mel ne moo xaw a bu ëppalee day yàq koo day fay gis booba ndax day mel ne moo a nag lu ci jàll tam du ko yàqal dara sëñ Cheikh kii mu ne kuy julli naafila ci weeru koor ndax dagan na muy xool ab kaamil wala mu ubbi téléphone am di xool ci alxuraan ji waaw dañ naan dagan na waaye gënut dagan na waaye gënut gënut rawatina bu dee ki koy def du ilimaan ji du ilimaan ji ñu topp ci ginnaaw ilimaan ilimaan di jàng moom muy yor tiim alxuraan ci fenn loolu mënuñoo wax ne daganut waaye nag gënut ilimaan moom buy wax ci kaw liñ santaane mooy déglu ko déglu ko buy wax ci kaw liñ santaane mooy déglu ko waaye santuñ ngay xool feneen di jàng leneen bu gàggee ku ko mën a gàgganti gàgganti ko bu kenn mënta gàgganti itam wàññiwut dara mu bàyyi loolu dem jàng leneen rek du yàq dara dara la yàqu faatiha rek lañ mënta defee noonu te faatiha kooku mën a kooku mën nit mën naa gàgg te kenn du ko mën a gàgganti bu génnee faatiha bu kenn mënta gàgganti day bàyyi loolu dem jàng leneen rek dara nekk jarut kon ñaan dañu xool kaamil ngir bu gàggee ñu gàgganti jarut jarut jarut ko suñ seet kii mu ne lan mooy atte koo xam ne day woor nee na moom guddi gi lay liggéey day fanaane liggéey guddi su bëccëgee day nelaw ba takk sontel mu door a jóg ah, bu fekkee day liggéey guddi gépp day nawee bëccëg gépp tooñu tooñu bu fekkee day liggéey guddi gépp nelaw bëccëg bépp tooñu nelaw yu jaadu moom dañ naan nelaw yu jaadu bu fekkee li muy nelaw ay juróom-benn waxtu lay doon juróom-ñaar juróom-ñett loolu dañ naan jaadu na ci nelaw ah. xëy bu dee mag mën naa wàññi nit lu magee ak ay nelaw wàññi benn a wàññi waaye li gënul daal mooy moom guddi gi benn da nga nelaw ni nit ñuy nelawe wala nga nekk siif bopp yoo xam ne su farata ba bañ nelaw bët set na ngeen nelaw ba bi loolu moo baaxul waaye ku nekk ci farata ci guddi gi lu ko tee nelaw lu mel ab liggéey boo xam ne guddi la koy def kooku guddi gi bu ci liggéeyee bu xëyee sañ naa nelaw kuy xas nelaw nag yeewu gi nekkul ci loxoom bu yàlla dogaloon mu nelaw ba gee it du ci am benn bakkaar yeewu gi nekkul ci loxoom te la ko tax a nelaw it lu jaadu la waaye ki nga xam ne li ko tax a nelaw jaaduwul nag kooka moom bu yeewu gi nekkul ci loxoom itam am na ci am na ci moom wàll ndax moo nelaw nelaw yu jaaduwut lu ko ca mën di fekk kon am na ci wàll ci nelaw nelaw yu jaadu nag kooka moom lu man di xewit lu ci am yenn daan seen seet xam naa dañuy mujje laaj bi ndax waxtu yi jege na mu ne day seetlu imaam bu dee xutba ajuma day def benn xaaj toog jógaat àggal li ci des muy laaj ba xam toogaay boobu muy toog ndax day noppalu wala day ñaan waaw ah, diggaluñ ko ñaan de diggaluñ ci ilimaan ñaan de dañ naan day dallu rek dallu day xàjjale ñaar yi rek dañ naan ñaari xutba la mu leen xàjjale rek xàjjale gi nag mu toog mu toog as ndiir soo xam ne rek da ciy wane ne xaaj bu njëkk bi jeex na bu ko defee bu ñëwaatee tàmbali xaaj bi ci topp waaye diggaluñ ko mu fay ñaan nit ñi yëpp nag daanaka dañu jàpp ne day ñaan ndax saa bu noppee danañ <laughs> danañ kii saa bu noppee danañ jëfi seen loxo raay seen seen seen kii raay dañ mën nañ leen bàyyi rek mën nañ leen bàyyi ñoom mën nañ faa ñaan nit mën naa ñaanal boppam moom ci diggante boobu ndax ginnaaw yonente bi dafa wax ne ajjuma am na diir boo xam ne ku ca ñaan yàlla yàlla nangu ko dañ wuute ci kañ la am na ñu wax ne diggante bi ilimaan tàmbalee xutba la ba ñuy julli diggante boobu nag amoo fi occasion ñaan fu dul foofu kon foofu nit ki moom mën naa ñaan bu ilimaan ñaan moom mën naa ñaan ilimaan tam bu ko neexee ñaan moom it ndax jéem a dajeeg loolu moom itam waaye daal loolu topp ko jóg moom ñaan moom taxut a jóg njotaay soosu nga xam ne ilimaan da koy am diggante xaaj bu jëkk bi ak xaaj bu mujj bi ci xutba bi sëriñ Cheikh jërëjëf xam naa waxtu yi xaw naa cate ñu mujj laaj bi rek mu ne ndax da ndax dagan na ci ab jullit wala boog lan mooy àttab koo xam ne dafa jàng aw saar ci ràkk bu mujj bi ci julli goo xam ne ñeent rakk la ba mu demee ba taayee ba taay mujj ji ba noppi nee na mu jugaat ba taxaw temm demaat toog mu ne kon kooku lu lu ko war daal day mel ne euh, ñeenteelu ràkk bi ginnaaw faatixa da ca jàngaat dara ci alxuraan loolu di lenn ñaareel bi bi mu taayaa ba noppi dafa sëlmarut xanaa jógaat ba taxaw kon day mel daa am ñaar yu des yu mu yokk yu mu jàpp ne da koy yokk bu dee alxuraan bi mu jàng ginnaaw faatiha moom ci ñeenteelu ràkke bi loolu dara nekkut moom dara nekkut mooy fi ñu ko sàkkoo mooy ñaar ràkk yu njëkk yi waaye la ca toppit ku ko ci defit dara nekkut du laaj dara du waral dara du waral sujjóot du waral dara mooy ku jàng ginnaaw faatiha nga jàngaat leneen ci alxuraan tam ci ñetteelu ràkke wala ñeenteelu ràkke it dara du ca war bu dee nag bi mu taayaa ba noppi war a sëlmal mu jóg ba taxaw ñu door koo xamal ne kat julleem jeex na mu dëppaat toog sëlmal loolam yokk la bu yokk goo xam ne day laaj day laaj sujjóot kon bu taxawee ba noppi ñu ne ko mat na wala mu xamal boppam ne matoon na kat day dellusiwaat toog sëlmal bu sëlmalee ba noppi nag sujjóot ñaari sujjóot sëriñ Cheikh jërëjëf sëriñ Cheikhouna ginnaaw bu ñu rafetloo tontu yi ci leer gi ak tey ak tege ci xam-xam kon ñu sant la ci turu daayira muqaddamatul xidma bàyyi la nga tàggoo rek ñu door a yëkkati jataay bi tàggoo bi na xanaa di santaat ak di ñaan yàlla rek lu am njariñ ci wax ji mu defal nu jàppandal ba nu mën koo jariñoo di ñaanal ci koor gi itam mu yombalal noonu àggale ko ni mu ko bëggee nangul nu ko lu nu am ci ay rëcc rëcc yi ci weeru koor rek di ko jiitu mu jéggal nu ko noo ngi sant ñëf asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf kon ñu ngi delluwaat di sant sëriñ bi di delluwaati di sant ñi teew ci jumaa ji ànd ak jataay bi ak ñi nga xam ne ñu ngi koy topp ci jumtukaay yi kon suba incha allah ñu ngi fas yéene waxtaanee ay dëgg-dëgg yu aju ci wërsëg ak alal ak barke ni ko Serigne Touba radiyallahu anhu gisee euh, Serigne Abdul Qadir Bousso Alaaji Cheikh moom moo koy def nekki noonu ba tey daayira mi ngi fàttali ne képp ku bëgg indi ay laaj mën na ko yónnee ci numéro yi 77 678 euh, 57 66 77 678 57 66 wala 77 072 94 76 77 072 94 76 ku ci yónnee ab laajam dina jot ci ñi nga xam ne ñoo yore loolu ñu mën koo saytu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba beneen jotaay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.